niñ leen ko doon waxee sànq ba léegi Mouhamadou Ngouda Mboup la ñuy dalal nekk enseignant chercheur en droit public ñu ngi lay nuyu di la ziar Ngouda Mboup. salaamaaleykum maa ngi lay fay soxna naata di am mbégte di ñëw ci kër gi di nuyu ñu ma fi fekk. ci mhm. plateau bi yëpp. amati mbégte ndax euh, saa su nekk yaa ñuy euh, gindi ci yenn question yi euh, <laughs> moom dañuy faral di liggéey ak moom alors Chérif waxtaan wi ñu door ko certainement ak xibaar bi fi wadd démb mu président de république mi nam indiwaat poste premier ministre jaarale ko ci ab révision constitutionnel ci benn loi constitutionnelle. jërëjëf soxna Naata professeur ginnaaw bi ñu la nuyu mi ngi koy wax sànq kon nga nekk enseignant chercheur euh, droit public ca université Anta Diop bu il y a bi ñu fi jëlee poste premier ministre yaa ngi fi woon ñaawul woon kon ne njuumte la. tey président Macky Sall daal dina ciy dellusiwaat est-ce que am nga ci mbetteel. aw ma ci mbetteel parce que damay rappeler ni Sénégal trajectoire am dafa am lu may tuddee le patrimoine constitutionnel te loolu poste premier ministre bi ma toogee fii dama la ko wax ne la le mot primature Senghor moo ko créé malgré que la notion de gouvernement de cabinet régime parlementaire fi nga xam ne Angleterre la jóge ak premier ministre foofu la jóge histoire bi mm-hmm. mais histoire boobu bu muy dox ba ñëw Afrique ba ñëw Sénégal ñun dafa am lu ci liggéey dans le patrimoine dans le dans le patrimoine constitutionnel sénégalais mm-hmm. mu am lu mu dugal suñu dëkk aussi ñu tudde ko identité constitutionnelle sénégalaise mm-hmm. muy li nga xamante ni daf yoo xam ni c'est spécifique au Sénégal moo tax biñ koy dindi dama ne la président yi ko fi dindi yëpp dañ koo dellowaat ba commencé ci Senghor bi mu ko dindee parce que 1963 dafa am 62 dafa am ak problème ak Mamadou Dia bi mu paree boobu président du conseil lañ ko daan wax parce que troisième république France lañ ko doon wax après quatrième république poste bi ñu hérité mais Senghor bi mu demee ba boo xoolee exposé des motifs am sax dañ ciy delloo toujours étudiants yi di leen wax xooleen ko Senghor dafa def réquisitoire contre suppression boobu ni man de dama yaakaaroon ni su ma ko dindee mbir yi dina gën a bar mais ca laa gën am jafe-jafe parce que fonctionnaire bi nga xam ne sax dafa nekk fu gën a sori wala foo dem ci dëkk bi bu ñu ko joxee dossier mu ne eh yéen eh, eh, man sama yoon ne ko ci dem leen ci président de la république ba nga mu amee loolu nag mu ni poste premier ministre dama koy delloosi bi mu ko dellu see mu def ko le président Abdou Diouf ba ni mu fi jugee mu remplacé ko ci article 35 bu constitution le président Abdou Diouf aussi bi mu ñëwee mu toog tuuti parce que toujours nañu xool poste bi bu ñu koy supprimer ci période ci jafe-jafe lañ koy supprimer wala kuy doog a toog mm-hmm. koo xam ne day chercher une nouvelle légitimité wala dafa nekk en proie à des difficultés wala à des incertitudes moom it bi mu ko dindee te boo xoolee loolu moom mooy le paradoxe ay premier ñoo ëpp ci liñ ko dindi benn chef d'état rek ko mës a dindi delloo ko muy Senghor le président Abdoulaye Wade moom it mu dindi ko de 83 à 91 après mu delloo si ko waat loolu lan lay tekki mooy le premier ministre damay wax toujours ni dafa am gëdd ci kanamu président de la république am gëdd ci kanamu assemblée nationale am gëdd ci administration donc loolu soo xoolee mooy l'épine dorsale du système institutionnel politique et étatique sénégalais boo ko dindee rek day fay mel ni ressort c'est-à-dire que day am léegi li tax bi ñu koy dindi ma ni woon président de la république mën na def erreur te lii dafa dangereux dama waxoon sax boobu c'est une réforme dangereuse mhm. ñu ne ma lu tax nga wax ko ma ni leen parce que su jafe-jafe amee ci réew mi premier ministre day doon tampon boobu day doon barrière bi day doon bouclier mhm. mais bu fa jugee rek président de la république day jàkkaarloog askan bi te loolu bu ñu demee ba nga xam ni si poussé à outrance président sax mën na cee démissionner boo xoolee événement mars yi mhm. gis nga bu amoon premier ministre peut-être que président bala ñuy jote ci moom premier ministre mën na génn mhm. nest pas faydaay gi mhm. wala mu am nu mu doxalee boo xoolee problème mu syndicat yi avant mu yegg ci président de la République premier ministre moo koy réglé boo xoolee yenn problème yi da gis benn ministre sax mu ne man kat président de la République wala président laay waxal wala président ni ah lii de conseil des parce que gëdd gi mu am ci administration moo tax day coordonner l'action du gouvernement gëdd gi mu am ci kanamu assemblée nationale nag dafa am solo lan moo tax. Mhm. parce que réforme bii nii. Mhm. am na lu ñu waxul te loolu dama ko mës a critiquer. lan la mooy dañu ne rek dañuy delloo post premier ministre déedéet loolu. dañuy changer la nature du régime politique sénégalais. Mhm. te loolu man dama jàpp ni kenn mënu ko nangu dans un système normal en un an et ñu mun a jóge du régime parlementaire parce que système parlementaire mooy mu am premier ministre c'est-à-dire un exécutif à deux têtes mooy un coq à deux têtes mu am droit de dissolution et possibilité de renverser le gouvernement mm, motion de censure très bien boo amee ñaar yooyu rek maintenant mën na nekk régime parlementaire dualiste wala régime parlementaire moniste mm-hmm. léegi bu ñëwee tey jii nii premier ministre nga ñëw nga diddi ko mooy assemblée nationale amatul benn prérogative parce que dañoo dem ci régime présidentiel mooy li amul États-Unis foofu président de la République moom mooy exercer doole jëpp alors que même suñ fii suñu dëkk président de la république moo am doole ji yëpp boo liree constitution bi des articles 42 à mhm. moo ko yor léegi boo dindee premier ministre mooy assemblée nationale amatul benn sañ-sañ dañ naan la les ministres ne sont responsables que devant le président de la république. Mhm. assemblée nationale non assemblée président mënu ko supprimer tànkam sax mënu faa dugg mais problème bi mooy assemblée nationale mënut a jote ci président de la république parce que suñu régime le président est irresponsable moo tax sa responsabilité dañu koy transférer vers le premier ministre moo tax les actes du président de la république sont toujours contresignés par le premier ministre mmh. loolu mooy premier ministre bi day engagé responsabilité mmh. loolu am solo ba nga xam ne même faute su jógee ci président sax mën nañ ko jaare ci parce que ñoom bi nga xamante ni le premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne dañ ko reconduire rek mu ne man damay dem dugal une réforme boo xam ne dañuy supprimer poste premier ministre bi alors que moom demagul sax pour def la déclaration de politique générale beneen bi ci topp mooy texte bi wàccagul mais ni ma déggee ñu wax ko ba du ko dugal procédure d'urgence man loolu dama ci am mbetteel mhm. parce que bu fekkoon ne dañu ñëw profitoo ci régler des problèmes yoo xamante ni am na ci constitution bi dina mën a baral suñu système ma jox la exemple premier ministre suñu ko tabbee dafa war a def déclaration de politique générale mhm. ce n'est pas fixé dans une durée président de la république su waree tabb premier ministre waxuñu durée bi man ñëwoon naa fii. Mhm. je pense que jour boobu c'était avec man ak ñoo nekkoon. Mhm. ñu toog presque six jours amuñu gouvernement. Mhm. te yooyu yëpp boo xoolee ay rëq-rëq la. bu fekkee ne nag lañ fi jëlee woon lañ fi bëgg a indiwaat problème de numérotation la rek. fi ñu defoon président de la république. dañ fay def premier ministre ba pare lii c'est une réforme majeure parce que day laal plus de vingt-trois articles de la constitution. Mm. ayca Malick El Hadj Malick man foofu nga daaneele sax laay ñëw ndax tey euh, pour nga euh, jële fi premier ministre euh, faaw nga jaar assemblée nationale ñu laal constitution bi pour nga dellu siwaat ko faaw nga demaat assemblée nationale ñu nekkaat ay tailleur daal di retaillé waat constitution bu mu mel ni constitution Sénégal lu mu sacré sacré ci régime mu Macky Sall moom dañuy jël di natt di dagg di ta di di taqale est-ce que tey constitution war nañ ko yombale noonu di ko laal di ko laalaat. waaw jërëjëf ma lay gërëm wax bi dafa am solo sax parce que barki dem rek semaine bi moom laa amoon ak étudiant yi hmm. thème bi ñu amoon ak ñoom voilà révision de la constitution en tout cas boo leen koy wax da ñoom dañ lay wax sax ne la est-ce que constitution du Sénégal constitution bu rigide la hmm. mais da naan leen wëy pourquoi parce que constitution bu Sénégal pour nga modifier ko c'est une procédure complexe c'est l'article 103 hmm. mais dafa am lu am mooy président de la République constitution bi daf ko cërale ni ko yow bu ñu bëggee réviser constitution bi yow lañ ko jox wala député yi mais député yi duñu initier révision de la constitution parce que c'est un peu complexe pour ñoom hmm. mais président dañ ko cërale ni ko bu la neexee nga jaare ko assemblée nationale hmm. muy le mode d'élection du président de la République la durée du mandat et donc euh, le nombre de renouvellement du mandat muy article 27 loolu la ñuy tuddee les clauses d'éternité dañ ko laal waaye foofu laay ñëw ak benn boo xam ne dañ ko tuddee la forme républicaine de l'État mooy Sénégal mënul doon monarchie mënul doon royaume mais daf ci am pratique yoo xam ni tey par exemple président de la République gisoo moom sax il est cohérent ci li def bi muy dindi poste premier ministre yëgalu ko askan wi hmm. teg ci campagne électorale bi dañ ci génn rek dindi ko tey bi mu koy indi aussi deful sax cest à taxawul sax jàkkaarloo askan wi wax leen. mais pourtant boo xoolee. poste premier ministre moo gën a central. da koo def génn réew xam nga la moo tax mu central tey bu premier ministre amee rek ça veut dire que yow pour nga mën a gouverner il faut nga am un premier ministre boo xamante ne dafay am une majorité concordante. te ni ko Malick waxee mooy suñu constitution tey war nañu mën a tey jii nii dooleel yenn clause yoo xam ne kenn du ko laal. Mm-hmm. trompé Macky Sall s'est trompé sa veut dire que en réalité le poste est éminemment important. Mhm. beneen bi ci topp mooy tey jii ni président de la république kenn mayu waru ko may facilité boobu noonu. facilité bi ñuy réviser constitution bi mooy tey suñu constitution dañu koo laala laala laala laal ba dafa perd son contenu. Mhm. c'est-à-dire que tey boo ñëwee tey premier ministre tey. Mhm. boo xoolee moom am na gouvernement. moom gouvernement bi ay institution moom gouvernement bi ay institution premier ministre du institution mm-hmm. xam nga loolu rek problème la cest dire que tey président de la république moom institution la mm-hmm. léegi tey bu fekkoon ni tey jii nii bëgg nañu tey jii nii avancé dañu naan mais poste premier ministre dañu fay def verrouillage mais premier ministre président lan fal waaw mais xam nga premier ministre nee suñu patrimoine constitutionnel la bokk mm-hmm. c'est pas parce que dañ laa fal que da ngaa war a def lu la neex sa réalité Sénégal dafa bàkke boppam état de état de droit titre de respectabilité la te donc yow boo nekkee chef d' état bu dee dañ lay bàyyi ngay laal lépp di laal lépp ma wax la benn affaire mhm. bi ñuy réviser di def poste premier ministre am na loo xam waruñu ko woon laal dañoo juum laal ko muy article 103 bi mhm. te loolu day laal article 27 dañoo que bi ñu ñëwee ci article yi ñu war a modifier dañu ne article bi article bi ba yem ci article ni article mais déedéet article 103 kenn waru koo laale noonu mhm. dañuy laal article 103 lu mu wax article 103 moom moo ni article 27 la fa nekk a président la République ni ñu ak lii di benn mandat ngay def te benn yoon lañ koy tollante ak mode d'élection li ñuy fale njiitu réew kenn mënu koo laal ad vitam aeternam clause d'éternité la donc article 103 boo fay laal ay alinéa ngay laal mais mënoo laal article bi parce que alinéa 7 bi daf ne la cette disposition ne peut faire l'objet de révision loolu mooy clause d'éternité mmh. clause d'intangibilité c'est une fixité tant Sénégal mi ngi am constitution bi andiwul constitution bu bees nii lay tëddee loolu kenn du ko mën a. mais professeur am naa benn laaj xam nga démb ba tey maa ngi dégg spécialiste yi wax yëpp ñu ne wax nga ko léegi sax nee nga c'est éminemment euh, important poste bi euh, waaye importance bi ndax ci. Euh, servir de paravent ni ñu koy waxee maanaam sur le plan purement politique pour am président nga xamante ni si wàllu politique rek la am njëriñ wala ndax si euh, baral action publique daf ci am njëriñ ak euh, permettre quand même euh, aux Sénégalais ñu mën a dund convenablement ban ban valeur ajoutée lay am ci seen dund. contrôle de l'action gouvernementale. très bien mm-hmm. d'ailleurs au-delà du contrôle sax ni ko Malick waxee et puis seen question yi dafa la xam ngeen moo tax dañuy def deux pas en avant. Mm-hmm. trois pas en arrière. parce que 2016 le président Macky Sall dafa def une réforme nationale dañ ko dooleel parce que assemblée nationale dafa amoon di ay type de contrôle benn bi moo doon le contrôle information question orale question écrite question d' benn bi moom moo doon le contrôle sanction moom muy renverser le gouvernement léegi nag ñu ñëw dooleel ko indi ko contrôle évaluation te contrôle évaluation day am contrôle résultat évaluation des politiques publiques kon assemblée nationale soo ko doolee ça veut dire que lan lay évaluer l' mhm. action du gouvernement action a jaar xam la moo tax parce que système yëpp depuis Tocqueville États-Unis fu mu mënti doon dañ ne la centralisation moo am. Mhm. déconcentration boo gisee préfet yi gouverneur ak décentralisation dinaa ci ñëw ah. cest dire que boo indee premier ministre dafay am désengorgement président de la république bi am na yenn tâches yoo xam ne du ko gérer mhm. loolu moo tax soo demee dans les régimes parlementaires dañ lay wax ne le chef de l'État n'a que des fonctions mhm. la magistrature morale il est garant de la légitimité institutionnelle et il est garant de la continuité de l'État li ci des yëpp premier ministre lañ ko jox. donc premier ministre day mën a dox tey jii nii mënoon nañoo def réforme tey jii nii rek. man wax naa ko ni su président de la république bëggoon lu baat day ñëw rek ni le premier ministre moo koy présider léegi nga gis nest pas ñuy jël des décisions fekkoon mais le premier ministre conseil interministériel rek la mën te administration dafa war a am chef. xam nga président de la république mënut a jiite administration jiite les ministres jiite sénégalais yëpp day métti ci moom. mais loolu constitution bee ko may euh, pouvoir yooyu. waaw constitution bi dafa laa may ay pouvoir mais constitution constitution bi aussi dafa encadrer pouvoir yi loolu moo indi la séparation des pouvoirs. Montesquieu dafa ne tout homme qui a du pouvoir est tenté d'en abuser et il y va ce qu'il trouve des limites mu ne la Et il dit que c'est par la disposition des choses que le pouvoir arrête le pouvoir. le président de la République suñu système dafa am doole parce que boo xoolee doole ji yëpp moom lañ ko jox. il nomme à tous les emplois civils et militaires il nomme le premier ministre et met fin à ses fonctions il est donc garant des arts et des lettres il est tout. super euh, il est très bien. loolu moo sax d'ailleurs dañoo jugee moo sax ñoom dañuy juum que bi ñu nee régime présidentiel kon ñoom lu ñu indi c'est un régime d'hyperprésidentialisation où le président de la république domine neutralise tous les autres pouvoirs léegi nag soo amee premier ministre dafay seconder président de la république dama jox benn exemple soo dindee poste premier ministre par exemple président de la république tey jii nii bu ñu amee benn sommet wala dara est-ce que xam nga ni tey jii nii président de la république tey yenn sommet yi du mën a dem wala yenn sommet yi su fa nekkee tey par exemple dañ koy booleeg ñoo xamante ne ay premier ministre lañ alors que du ñu ay nawleen en réalité et cetera même dans l'architecture dafa am gëdd la beneen bi si topp dama koy wax di ko waxaat mhm. premier ministre su fekkee mooy chef de l'administration mooy dafa am gëdd ci kanam administration mhm. su fekkee ne moom mooy engagé la responsabilité du gouvernement dafa am gëdd ci kanam. léegi euh, Ngouda Mboup euh, gis nañ euh, bu amee lu ni mel par exemple révision bii nii bu ñu demee ba commission dem ba plénière ba ñu adopté ko bu fekkente ni dafa am ay parlementaires yoo xam ne dañoo bëgg ñu ci chaque fois dañuy gis ne bu ñu demee conseil constitutionnel moom dafay wax ni dafa incompétent léegi loolu moom lan moo ciy saafara parce que bu fekkente ne chaque fois ñoom li ñu bëgg rek dafay am te fa ñu war a demee di ko kalaamee foofu saafara du mën a am. jërëjëf soxna Naata mooy question Malick bi mu bi nga ma laaj dafa am xam nga constitution bi dafa sacré dañu ne moom une constitution soo koy laal da war a tiit da war a lox léegi nag dafa am lu la ñu génnee deuxième guerre mondiale dafa am la primauté du pouvoir exécutif mu am fusion entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif loolu moo indi le bloc présidentiel waxatuñ sax bloc majoritaire mais bloc présidentiel la wax ba nga xamante député lu président bi ñëw dañu naan ñun moom lañ koy defal parce que moom lañu àndal léegi nag majorité boobu nag dañu naan parce que elle day xew ci pays occidentaux yi gis une majorité ñëw sax gis ay minorité ne lii duñu leen ko maayete et cetera jaare ko ci constitution bi mu dal ci ñëpp léegi loolu conseil constitutionnel moom mooy problème bi mhm. parce que moom ay attribution yi ñu ko jox dane moom daf koy exercer mais de façon stricte moom mu jaaxal ma sax parce que récemment bi mu amul kuréel dem na peut-être que c'est fenêtre bu fekkee ñeme na loolu mhm. mais bu ñu yóbbee révision constitutionnelle parce que une loi constitutionnelle par commodité de langage mooy une loi de révision de la constitution mhm. dafay jële dara ci constitution wala mu dugal ci dara mais moom bu demee dafa naan man ci li ñu ma jox attribution loi constitutionnelle bokku ci mhm. te pourtant loolu la ñëpp daan wax. dañu naan mais comment se fait-il que yow ñu ne la yow yaay sàmm constitution bi te constitution bi suñ ko waree laal nga ni am na foo xam ne bu ko laalee mënu mu cee. mooy tax tey jii nii tey les majorités soo leen tey jii contrôlé wul sax. li nga xamante ne dañ koy sàmm ni leen bu leen ko laal mën nañ koo jéem a caxat caxatee ba jéem ko laal ba indi interprétation xam nga droit dafa sew su boobaa mm-hmm. léegi nag lan moo ko mën a indi soxna naata loolu mooy lan tey jii nii volonté bii ñuy def pour réviser constitution bi mais dañuy réviser waat constitution bi pour conseil constitutionnel loolu nag xamal fan la amoon mooy commission de réforme des institutions séenéer yi Amadou Mahtar Mbow def na ko ñu teg ko dënk ko mais président de la République ak ñi mu àndal bëgguñu ko jël. mais justement euh, ci ci ma euh, domaine boobu naatu dugg gis nañu euh, un an et demi après. nga changé loolu. ñëpp jàpp nañ ko ñëpp deux ans et demi ñëpp jàpp nañ ko aveu d'échec te on se rappelle loolu bi ñu koy def majorité présidentielle bi ngay wax ak véhémence bi mu ko doon défendre tey jii ñu andilaat leen même situation bi. 124 voix ñoo naka la ñuy tey mën a. défendre la situation bi tey jii. mais avec la même véhémence. Malick. Euh, <laughs> euh, Diaw Diaw man Chérif toog nañ fii ñun on nous traité de politicien ma toog naa fii ci plateau ñu wax ñu lu ne ñu ne kii. tàmm nañ ko garaaw. ñi lay wax loolu. ñoom ñooy dellu si tey jii bénir ko. ne la noo wutal la argument xam nga am na loo xamante ni xam nga science dafa sew. la man ma ci lire sa dama tiit. du droit constitutionnel mais del xool bu ñu teeloo rek vous allez voir que. on va faire la réforme avec les mêmes exposés des motifs dara du ci changer parce que bee passé dañ ne il faut ñu indi pouvoir yi il faut ñu indi un régime présidentiel bi dañu naan le contraire la ñuy waxat il faut ñu indi waat régime parlementaire te looloo fi nekkoon ça veut dire que en réalité mais nag mais professeur oui professeur ba aussi ba ci discours bi mu defoon jëm ñaajo mooy bi ñu koy defal euh, kii cérémonie d'investiture bi prestation de serment bi dafa waxoon ne lourdeur yi procédures yeeg yooyu moo tax ñu bëgg a dem ci beneen schéma buy tudd fast track. tey ji est-ce que évaluation boobu aussi mënuñu xaar ci ci ci ci assemblée nationale bu ñu leen joxee texte bi ñoom aussi est-ce que mën nañ ko bonifier wala soit ñu évaluer ba xam ndax fast track bi ñu ko bi ñu ci bëggoon dañ ko amul ak ban ban mhm. cap lañu war a jël actuellement mooy sànq question bi ma la wax ne la quel type de premier ministre est-ce que war a am un premier ministre. qui exerce la plénitude de sa fonction li Idrissa Seck doon wax wala ndax dañoo war a amaat benn premier ministre rek qui ne sera que le premier des ministres. mais très bien Pape te loolu noonu lay indi beneen problème parce que boo xoolee bu fekkee ni premier ministre bu bëgg a exercer la plénitude de ses compétences. Ah. boo moytuwul rek ñu indi la une dualité au sommet de l'État. xam nga chef d'État yi dañoo fiir. Mhm. bu ñu gisee premier ministre ba pare. dans un an on sera en pré-campagne pour 2024. Mm-hmm. non kooku moom ministre bu. foofu président de la République constitution bi dafa nekk rek. yow da ngay nommer le premier ministre et tu mets fin à la yow mën na la ko def keneen mën na ko def et cetera te doon au Sénégalais donc voilà mais problème bi assemblée nationale la l'assemblée assemblée nationale moo évalué wul les politiques publiques les députés ont énormément de pouvoir mais lu tax parce que ñoom xam nañ ni am na loo xam ne suñu ko defoon tey jii nii mun nañu mettre même en jeu la responsabilité du gouvernement je donne un exemple précis ñoom tey mënoon nañoo def un rapport bu doon dëkk yi nga xamante la. dafa kii def un rapport wane dafa waxoon fast track. ñu xool fan la yëf yi taxawee. ñu xool lan moo indi. li nga xam ne président de la République li mu bëggoon def ko su fekkee ni suppression bee ko indi. ñu delloo si quoi su dul loolu. ñu jéem xool fan la nga xamante la bañee ñu agir foofu noonu. moo tax soo xoolee dañuy def des réformes à l'aveuglette yoo xamante boo xoolee c'est du tâtonnement te tey permettre à un chef d'État muy ñëw di dagg fii ci constitution bi di dugal lii di li man man man je suis meurtri pan quand je vois ça parce que loolu daf may metti parce que je ne peux pas comprendre la constitution du Sénégal ñu bàyyi le président de la République une structure comme la primature tey jii ma jox leen beneen exemple est-ce que xam premier ministre tey jii nii général du gouvernement moo ko remplacé gis juge bi ne leen lu ngeen def c'est-à-dire que en réalité daf ñu nekk dans un système de rafistolage te loolu noonu ce n'est pas bien pour un système boo c'est un système politique institutionnel étatique huilé mm. et qui respecte quand même donc justement lan euh, secrétariat général de la présidence boobu noonu est-ce que c'était le même rôle que le premier ministre abat euh, comme travail en général mm. présidence présidence la général présidence bu gouvernement bu dee bu gouvernement bi boo xoolee moo waroon jël rôle premier ministre mhm. mais lu tax mënu ko jël parce que ki fa nekk ministre simple la mu mën protocolaire du point leen beneen bi si topp soo xoolee en réalité toutes les attributions du premier ministre dañ ko delloo atul président de la république mhm. ba nga xamante ni ñooñu en réalité c'est un office de secrétariat donc boo xoolee tey jii nii ñi nga xamante ne ay ministre lañ dans le système où nous sommes mhm. a def njombe boo xamante ni il est incompétent et cetera mais xool leen le gouvernement actuel dama koy wax y a des on a créé le ministère euh, chargé de la restructuration par exemple du secteur informel. te c' est tellement important kenn mosu ko dégg. gëj nañ ko gis man depuis bi ma toogee fii dans l' spéciale. et pourtant loolu noonu da lay wan des assistants du président de la république parce que dañu ni ñoom ñëpp. artisanat nag. pourquoi parce que le président de la république dafa bëgg a nekk fépp. dafa bëgg a nekk yor seen place et cetera te loolu mënut a loolu moo indi. ak ministère de la ce qui est sûr c' est que le le le projet de réforme de la constitution va la poste aura un nouveau premier ministre. mais loolu cette assemblée ne surprendra personne parce que yëkkati loxo lañ fi nekkee. loolu moom c'est sûr 127 voix yi 127 yi dinañ ko dépassé waat boo moytuwul mais tey boo indeewaatee premier ministre forcément dina amaat réforme wala boog remaniement ministériel. ci ci biir gouvernement bi loolu aussi nekkaat beneen mbir bu nga xam ni. mën na tardé liggéey trop trop bi ma déggee mbir mi man démb parce que man j'étais dañ doon woo. Mais moi, euh, bon, j'en revenais pas parce que moi, j'en ai parlé, ça fait 4 jours. Mais je me suis dit, <clears throat> su fekkee président de la République indi premier ministre mooy gouvernement bi day démission. c'est fini. premier ministre boobu bu ñëwee ñu ñu tabaat gouvernement. mais bu ñu fàttee dans 2 mois dañuy dem élection locale. et d'habitude pour les élections locales ministres yu bëri dañ leen ci tàbb. Mm-hmm. mais ku ci perte fa nga

dara waxuñu ni mën na créer poste bi ba pare toog noonu parce que constitution bi dañ fa deful verrouillage loolu aussi beneen problème la cest dire que moom texte bi mu ñuy proposé man loolu laa wax il faut aussi débat bi parce que débat bi dafay war a am solo. warul nekk comme débat bële débat bële ne dañoo ñëw opposition bi defoon nañu ay amendement ñu rejeté amendement. mais xanaa bi gis texte bi kañ parce que procédure d'urgence la ñu wax. procédure ci laa bëgg ci aussi parce que réforme bu mel nii. une réforme d'envergure comme ça boo boo demee même ci constitution bi dañuy juum même parrainage bi da ngay gis ñu ne la un électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat mm-hmm. alors qu'on ne parraine qu'une candidature donc euh, boo demee ci constitution du Sénégal sax muy am ay fautes mais argument bi laa bëggoon tax ah. argument bi bi ñu avancé ne oui président début janvier dafa war a nekk président en exercice bu Union africaine mm-hmm. est-ce que loolu kam yey na la non loolu man non non loolu loolu loolu man man dama ko gis je dis que cet exposé des man doyuma exposé des motifs parce que lan moo tax c'est une présidence président de la république après waaw bu jógee ci union africaine waaw léegi bu ñu ko joxaatee CEDEAO

<laughs> bon il faut qu'on parle un peu aussi du conseil supérieur de la euh, magistrature voilà balaa ñoo dugg ci loolu avant ñu dëj Chérif euh, il est presque 9 heures euh, il faut ñu jàll ci professeur officieusement lii bu muy dugg ñu bëri dañ doon wax ne président Dauphin bi la doon rey bëggul woon ku ko wutu foofu pour maanaam présidentielle bi di ñëw mu delloo si waat ko bon xel tey mais sur sur le plan politique dafa mel nii ñun daal ay nu mu tuddati ay décision politique ay calcul politique daal moom mooy. moo ko sunu démocratie ak. sunu ak réew mi muy doxee la tamit. Cheikh Tidiane li na solo parce que boo xoolee. la second mandat du président de la République soo xoolee moom la waroon gën a liggéey parce que dafa ko war a liggéey dem mais soo xoolee li Cheikh Tidiane wax dafa mel ni c'est le mandat le plus politique. Hmm. parce que soo xoolee toujours ay stratégie lay teg. président de la république jëlee na poste premier ministre c' était une réforme cachée ñun ñëpp kenn yóbbu ko woon. Mm-hmm. aussi c' une réforme tellement rapide que ça nous a encore surpris. qu' ce que cela veut dire du point de vue politique que le président de la république est dans des stratégies et des tactiques politiques loolu nag lan lay indi mooy ñaari yëf poste premier ministre tey soo ko indee xoola moom même la ñuy waxtaan boo xool mën na doon boo xamante ni ñu ji ma jàngat day ji ni mun na rey enjeu élection locale yi waxatuñ ci. léegi mu indiwaat beneen enjeu ñu projeté wu ci mooy enjeu élection législative parce que léegi opposition bi moom aussi su jotee ci poste premier ministre mhm. mais day imposer la cohabitation au président de la république te am na ñoo xamante ni tey par exemple pour ñu mën a am amnistie Khalifa Sall wala Karim Wade il faut ñu am majorité à l'Assemblée nationale mhm. et donc le président de la république aussi soo jëlee dans son camp su nommé un premier maintenant nañu xool ki muy nommé le profil est important. Mm. si le président de la république nomme un technocrate koo xamante moom soxlawul dara bëggul dara. Ah, maintenant maintenant maintenant maintenant savez que la nomination d'un premier ministre pour un président est toujours politique. <laughs> pourquoi elle est politique parce que président de la république mënut a nommer un un premier ministre sans pour autant que la question soit politique. et elle est éminemment politique. Mm. te boo xamante ne moom dafa jàpp ni bu nekkul mooy la xew RDC c'est-à-dire que assemblée na koo moom mu nekk dans le jeu politique. génn nekk l'absent le plus présent. bu beneen élection mu ñëw. tey boo gisee RDC yëngu na. Hmm. ba mu bokk kadi Kabila yi ñu leen wër di leen jàpp. Hmm. parce que xam nañ ne élection bii di ñëw Kabila dafa bëgg a bokk. Hmm. donc loolu aussi mun na doon beneen enjeu boo xamante ni tey jii nii soo xoolee le président de la République il est dans ça au delà dama naan soo duggee dans la psychologie des hommes politiques et surtout des présidents a xalaat mënut a nekk surtout système bi ñu nekk parce que président Macky moom dafa am loo xam ne daf ko dàq. kon li mu doon c'est le seul chef d'État bi da ko imposer mu choisir Dauphinane dans son camp. Hmm. bañ a bokk li mu doon bañ dina am kon maanaam coow la ndax ki koy wuutu moom de parce que dafa ne woon bu ci teelee wax nit ñi duñ liggéey mais là moom mënutul ñàkk. xam nga lan moo tax parce que président de la République xam na ni su ko deful. moom boo deful ndànk ñoom dañu am candidat benn hmm. la deuxième chose mooy il est obligé mu am ku parce que tey bu deful loolu c'est-à-dire que tey le bouillonnement la question ce elle n'est pas internationale elle est interne parce que le Sénégal le président est dans tous les dans tous les fronts et avec tous les syndicats et que le climat social mais au-delà de ça. Mhm. président de la république tey jii bu préparé wul kenn nga xamante ni parce que une élection présidentielle dañ la soo préparé wul au moins deux ans deux ans suffisant mënu ko gañ. Mhm. Mhm. donc forcément il faut maintenant la ventilation des acteurs politiques et des tenants de son parti mun na am solo mais attention le premier ministre mun na doon président kon ci dynamique boo xamante ni dafa jël les élections locales def ko ne ñoom premier tour élection présidentielle moo tax ma ne la dafa dafa dafa tuer mais premier ministre bi aussi li ñu ko indee dafay mën a tey dooleel opposition ndaxte opposition danaan ah comme premier ministre ñëw na mën nañ cee jote te buñ ci jotee mën nañ ko imposer la cohabitation mm-hmm. avant de boucler euh, conseil supérieur de la magistrature yow sa gis-gis euh, président de la république ak ministre de la justice dañ cee war a génn magistrat guillemets sax parce que Dominique mm. Rousseau moo koy wax parce que moom il a siégé au conseil supérieur de la magistrature bu France te ñun dañ ko yàgg wax te Maroc looloo fa am mm. Belgique man def naa ay lël ak magistrat yi magistrat yi ñoo ko sàkku te am na solo parce que le fait que rek président di convoquer magistrat yi rek au palais mhm. xamante ni ça porte atteinte à l'indépendance de la justice te pourtant assemblée nationale président dañ ñu ko yow ko teg sa tànk en vertu de la séparation des pouvoirs conseil supérieur de la magistrature man dama jàpp ne dañ ko war a par le conseil supérieur de la justice parce que soo dafa war a am même. les universitaires bu ko defee muy toute la justice maintenant présidée par le premier président de la cour suprême su ko defee président de la république géré exécutif le judiciaire géré le judiciaire bu ko defee moom ak premier moom ak ministre de la justice ñu génn ci conseil bi tey jii nii bu loolu amoon da ngay gis ni l'indépendance de la justice day gën a renforcer xam nga lu tax parce que magistrat yi su boobaa noonu dañ xam ne non seulement seen i ñoom ñoo leen di soo jëlee le magistrat Souleymane Sibiko a été sanctionné mm. parce que en réalité boo ko jëlee président de chambre yóbbu ko waat président de chambre da nga ko da nga ko da nga ko sanctionné te dañu la mënu fa def lu dul 3 ans te mm. dañu ni c'est intérimaire soo ko fa jëlee mu li nga mun a def mooy dafa war a am avancement kon tey jii nii bu fekkee la carrière des magistrats départ du président de la république et du ministre de la justice ba pare ñu koy waxtaane palais ça veut dire que yenn magistrats yi y mm, téméraire mm-hmm. def nañ ko le juge Ngor Diop léegi tey conseil supérieur de la magistrature bu ñu fa ñëwoon tey jii ñu génn fa président de la république di gis ni tey jii nii en réalité corporatisme bi du am mm-hmm. génn namit génn boo xamante ni génn lay nekk ni mais en réalité ma ngay ma ngay nekk day génn totalement même le budget de la justice li ma ci wax dama ne leen il faut qu'on parle du financement de la justice ba nga xamante ni su boobaa noonu la cour suprême le premier président moom mooy établir le budget de la justice ñu dooleel ko ba nga xamante ni est-ce que c'est pas un ci sunu système bi ñu am nii non c'est pas xam nga lu ñu mën ko réaliser parce que président de la république dafa wax ñaari wax dafa dem rentrée solennelle mu ne je suis ouvert à tout type de réforme avant ñu koy fal président de la république dafa waxoon ne man damay def te pourtant président de la république a fait l'une des réformes les plus fécondes de la justice en mais dafa sooxe parce que dafa toogaat après 31 décembre mu ne bon nii la mës doxee ci Senghor ak si Abdou dama koy bàyyi bi mais déedéet faluñu ko pour loolu parce que moom xam na ni la justice elle tey ministre de la justice mën na jox des instructions à caractère individuel ou bien à caractère général Chérif mën na nekk journaliste wax dara. ñu ne ko mm. diffusion de fausse nouvelle ministre de la justice ni procureur. toppal ma Chérif ordre ni ko toppal ma Chérif. Mm. loolu dafa war a dakk mm. donc c' est des yoo xam ne bu ñu ko dindi woon beneen bi si topp mooy la possibilité boo xoolee magistrat yi keroog bu ñu leen convoqué xoolal lépp. Mm-hmm. pale lañ leen di donc le fait que ñuy jàkkaarloo président mu wan leen ni mooy seen chef. Mm. loolu day am lu muy def ci magistrat bi nga xam ne il doit être indépendant. il n'obéit qu'à sa conscience. Mm. te soo xoolee magistrat buy jël décision. Mm-hmm. dañu ne au nom de la au nom du peuple. merci loi bu ko assemblée di jël dañu mm-hmm. naan. loi de l'État. merci beaucoup kon nga xam ni magistrature mooy gën a kawe moo tax la justice ce n'est pas un pouvoir d'État c'est un pouvoir de la société. Ah, ah, euh, Marcel yow laay may buñaa bi rek balaa ñoo tàggoo une minute. waaw waaw dama gisoon nga bëgg a wax. est waaw bu fekkee ne rek am nga benn idée ci futur premier ministre bi kan moo koy nar a wutu. vous savez dama toogoon fii ma <laughs> bi ñuy tellement surpris que ndox mi ne woon fii yëpp daal <laughs> donc je dirais tout simplement qu'en réalité hmm. en tout cas il nous faut quelqu'un ko donc voilà c'est un rassembleur c'est un rassembleur mais un homme de consensus parce que le pays en a besoin mais bien sûr mais mun nekk aussi koo xamante ne c'est un technocrate et d'habitude noonu lay demee comme ce qu'avait fait Abdou Diouf comme ce qu'avait étudiant chercheur en droit public moo nekkoon suñu gan sant ko gërëm ko léegi dañuy jàll ci xët yu njëkk euh, journaux yi groupe euh, Futur Média di édité